aaj asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yéen mbokki téléspectateur yi nga xamante ni yéenay seetaan MK TV di télévision mu xaddamatul xidma bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci biir jumaay tuba di grande mosquée de Touba. tey jii nag di la 11 août 2021 yemoo ak ñaari fan ci weeru muharram di tamxarit ñu dugg ci at mu bees di atum jullit yi waaye ñu duggee ci duggin woo xamante ni Cheikh mun Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te dafa marqué li nga xamante ni moom mooy at mi dañuy wax ni at moo xamante ni dafa door di benn fanub talaata at la moo xamante ni mu nar a bëri ay balaa la nar a bëri ay wopp ay jàngoro ak i feebar tax Cheikh mun Mountakha ci doon gi mu doon Sëñ Tuubaa ci doon gi nga xamante ni moom la doon représentant suñu borom ci kaw suuf tax na yërmande ji nga xamante ni ëmbal na ko taalibe yi ëmbal ko jullit yi ëmbal ko sax lépp loo xamante ni mooy mbindeef ndax donn gi nga xamante ni moom la doon Cheikhul Khadim ci anam yëpp tax na nag mu woote bis bii def ko muy bis bu yaatu boo xamante ni bisub njàng alquranul karim njàng xasida yi ndax ku ne xam na ni Serigne Touba lépp loo xamante ni rek def na ko kéemaan la ci ñun waaye moom ci Serigne Touba ci jëmmi boppam ji moom bindam yi rek la jàppee muy kéemaan moo tax mu ne karaamati xattu yedd loolu nag tax na xasidaam yi nga xamante ni da koy toxale ca lawhul maxfuus xasidaam yi nga xamante ni fa suñu borom di bindee fa la koy jëlee daam ji nga xamante ni dereti saaba yi lay tolloog dayo tax mu daan ci tawasul daan ci jàkkaarloog suñu borom daa ko ci kañ di si tagg rasulullahi sallallahu alayhi sallam di si ñaan xasidaam yooyu la cheikh mouhamadou muntaxa ni bu jamono ji doyee waar bu nawet yi jafee bu wopp yi bare nañu dellu ci xasida yi sëriñ tuubaa yi defaraat suñuy xol yaatalaat suñuy ndab fas yéene tuubalaat suñu borom ngir suñu borom mën noo jéggal ndokk ba ñu amee kilifa gu mat kilifa ndokk ba ñu amee kilifa gu mel ni cheikh mouhamadou muntaxa ba tax na tey jii mu woote bis bi bis bii nag day wane rek pas-pasu murit yi wane yi tamit seen kilifteef wane yi tamit ni nga xamante ni noonu la ñu delloo ci ki nga xamante ni moom mooy Serigne Touba Khadim waaye am kilifa gu mat kilifa di Cheikh Mouhamadou taxaa tax wooteem bi ñëpp wuy si ko gis ngeen jumaa ji ni mu feesee del del del gis ngeen dëkk bi ni mu feesee del del gis ngeen pénc yi nekk ci dëkk bi ni mu feesee del ndax lii ñu fi gis ci mbooloo ak nii ñu àndee ay yar ànd ak teggin ànd ak dal gisuñu fi benn sécurité gisuñu fi benn force de l'ordre waaye tax taalibe yi jël seen bopp en charge organiser seen bopp respecter seen bopp lépp loo xamante ne luy takk la da ngay gis kenn koo xamante ni jël na mbuusam lépp luy wadd muy ndox walla dara mu jël ko yóbbu képp koo xamante ni kenn ku nekk yaa ngi fas yéene laxasaayu ngir di liggéeyal sa moroom xidma boobu yi nga xamante ni moom la sëriñ bi bëggoon tey ji yëpp am nañ ko day wane force yoonu murit day wane organisation yoonu murit nga xam ni soxlawuñu sécurité soxlawuñu force de l'ordre sëriñ bi def na ci ñun taal taalibe sëñ bi def na ci ñun yar sëñ bi def na ci ñun organisation ba soxlawuñu ku ñuy organiser ñun fu ñu mën a tase te sëriñ bi woote dinañ ko def nii nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi bëggee kon nag gis nga mbooloo mi nii nga leen gisee ñu ànd ñëpp ni nërëm doon benn fóot xol yi fas yéene jëfandikoo li nga xamante ni moom mooy xasida yi loolu nag li muy wone mooy mbooloo mi nga xamante ni moom moo teew ci jumaa ji tey jii daaw fi teew sax ci màggalu Touba màggalu Touba lu mbooloo mi bare bare waaye lii fi teew ci jumaa ji moom xam nañ ni Serigne Touba rek moo moo mën li Serigne xasida yi rek moo mën lii jumaa ji fees del del del del del te dégguñu fi benn raj loo dégguñu fi benn nit ci kaw nit kon loolu nag day wone euh, delluwaat gi nga xamante ne rek ñu ci dellu ci sëriñ bi xanaa rek di ñaan suñu borom ci doole xasida yi ci barkeb Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi suñu borom dàq mbas mi ba faw yàlla na ci suñu borom taxaw dimbali ñu sagal ñu sagal Cheikh Mouhamadou Mountakha ba bu ñu fi jógee dootuñu fi wax dara loo xamante ne gàllankoor la ci réew mi suñu borom defar nawet bi suñu borom naatal réew mi suñu borom yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha ban lii nga xamante ni noonu la doonee kilifa ak àdduna gi yëpp àdduna si suñu borom rus ci suñu borom sagal suñu borom wane ci moom ak kéemaan ci guddal aw fanam ci wéral ko ci dëbb ko kattan ndax xam nañ ni ñun rek ñoo ko fi bàyyi mbooleem naal yu yi nga xamante ne naal na ko te naalal ko lislaam naalal ko Serigne Touba. suñu borom defal ko kattan ak wér mu àggale naal yëpp te ànd ko ak taalibe yi kon daal mbokk yi mi ngi nii lii mooy journée xasida bi nga xamante ni moom la ñu amal fii ci Touba dégg ngeen xasida yi gis ngeen organisation bi gis ngeen mbooloo mi nga xamante ni noonu la mu yi ñëwee muy ñëwin woo xamante ni wu ànd ak taalibe la ànd ak dal la kon nag sëñ taxaa wane na ni moom mooy leader sëñ Muntaxa wane na ni moom mooy kilifa sëñ Muntaxa wane na ni moom mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul lépp loo xamante ni mboolem njabootu Serigne Touba yi seen jëf la boole dajale ko moom Cheikh Mouhamadou Muntaxa mbo si xasida yi daana am naam waaye nii ñu ko boolee tey jii nii ñu ko àndandoo nii mu lëkkalee kon sëñ Muntaxa mooy la fédérateur mooy ki nga xamante ni tey jii fépp lu baax nekk màng na ko indi ko mooy ki nga xamante ni moom mooy lëkkale mooy kii nga xamante ni moom mooy mottali naal yi nga xamante ni ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci nëga ni kenn ku nekk la nga yëkkati woon sëñ Muntaxa indi na ko waaye nag noonu yi rek la mën a mel ndax kenn ku nekk ànd na ak yow kenn ku nekk liggéeyal na la kon nag moom mooy suñu exemple mooy suñu référence bu ñu toogee ba décembre 2020 ñu naan sëñ Muntaxa moom mooy l'homme de moom weesu na l'homme de l'année kii année yi fi mësoon a nekk yëpp dafa nekkoon ci ginnaaw ay baayam nekkoon ci ginnaaw ay magam taxaw taxawaayu taalibe taxaw taxawaayu jullit ba tey jii muy doon ci exemple di doon ci référence waxuma la ci murit yi waaye ci àdduna bi yëpp boo ko nattee ci taalibe mu ëpp la ko nga natt ko ci xam-xam mu ëpp la ko nga natt ko ci ci wilaaya natt ko ci diine natt ko ci pas-pas natt ko ci sóobu natt ko ci dogu fépp foo ko natt Sëñ Muntaxa romb la ci ba mbam mat sëkk kon nag kilifa la goo xamante ni ñun murit yi ñoo war a xam suñu bopp fii la ñu toog ci jumaa ji mu wax ñu ni corona mii jaamu suñu borom la te du mooy suñu borom li ko suñu borom digal da koy def kon nag ñun ñoo war a xam ne ñun ay jaam lañ ay murit lañu ay taalibe lañu te sëñ Muntaxa mooy suñu kilifa ñu déglu ko di xool ci moom te du ko roy lii mu ñu digal nag tey jii mooy bis bi nga xamante ni si la fas yéene ñàkk bi të awaa àdduna ñun ci xaside yi tey yii ci la ñuy ñàkkoo ba tax na bis ne tey képp koo xamante ni teew nga fi sëriñ bi dina la immuniser ba dara luy balaa wala lor du ñëw ci yow kon nag ñu ngi ñaan ci barke xaside yi képp ku fi teew suñu borom faj say aajo képp ku fi teew lépp looy ragal daal na ko suñu borom dàqal ñoddil la ñu xéewal yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha jërë ngeen jëf mu doonoon Jibril Ndaw fii ci grande mosquée bu Touba ci MK TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.